parce que tey mënoo toog ci télévision naan 35 combats Modou Lo moom mun Siteu. waaw ba pare bañ ko loolu ma ne la ku wax ku ne da ngaa reer ba suur naan sam njarum soow teg la say tànk lamb sa poste fa ñaar fukki junni sa xel dal. Modou Lo moo la gën a xam ne mënul Siteu. ah Modou Lo moo la gën a xam ne moo Siteu lamb la te lamb ju metti la. kon boog na nit ñi xam li ñuy wax. Mhm. na nit ñi xam li ñuy jëf. Mhm. yaa ngi dégg lamb ji kenn moomu ko. Mhm. allah dinañ ñëw ci lamb Siteu Modou Lo tey ñu fekk la ci diggantal euh, Balla Gaye avant tout diggante abu ak Balla mu ngi nee toog lu amul seede baaxul ni ma bëggee laa ko bëggee sama xarit la yàlla dogal mu bëgg ma ma bëgg ko barke Seydina Mohamed lu mu laal moo gën li mu laalul Balla Gaye benn femme ndeysaan daf ma mës a xool benn bis tax xool ma xool ma xool ba mu neexoon femme bi ne ko ne ma Balla Gaye laa lay xoolee ko mënu maa jot ci Balla Gaye may naa la cent mille francs kon ci barke Balla Gaye laa ko amee jara na seytaane génn ci diggante Balla Gaye ak Sa Thiès doomu raam yi nañ réglé ah waxkat bi bon li ku ci dugg dinaa ubbi sa ah soxla amul loolu damay daw coow damaa topp nga bëgg a defaat li yooyu commencé ndey di non non non jaru ko jaru ko sax yarama tàng xaaral. dëgg maa ndey saaga. non jaru damay dañ naan naar laati rek. kon xam nga ni jamono ji mooy la damay daw afumel jara waaw na seytaane réglé nañu bàyyi ñaari diggante yoo xamante dañ ciy dugg di wax lu ñaaw surtout ñu bokk ndey ak bàyyi mais tey saa kees moom ñëwee tey fii ñu bari rus nañu fen kat dañ bàyyi fen li ma doon jooy xam naa ko li tax ma jooy mooy dama ne ñu bari dañu rus li nga doon xaar barke Serigne Touba billahi wallahi tey Sa Thiès kenn jiitu ko fi. am na ñu ne woon du ñëw. am na ñu ne du ñëw seytaane ñoo koy wax. ak taskatu kër yi. yan lu ñaaw la ñuy génnee seen làmmiñ di ko wax ci réew mi. kii ba muy uuf njabootam boobu demee wut nii ku doon dem di bëre di am asaaku ceeb bu ko indi ci kër gi ñu koy bokk bu ñu amee sombi sombi lekk. ndeysaan bu ñu amee café mu jox xañ boppam jox leen. Balla Gaye bu ko neexoon mu def na ñëpp dañ toog États-Unis gële di lekki million ak i njabootam lu am jox na leen ko toog. xoolal ci kër gi yi ak ñom fallok gone yi do xamé kan moy njabotu Balla gi ñëpp jox so seen biir lu am jox na leen ko ki moy talib Serigne Touba mais nak da def mbir tay hmm. def na mbir mais mais tay Sa jess Sa jess bam mu dama gis ci mom mu mel ku xawat am kersa ci digënté mak magam mais mais Sa Thiès amul ci Balla gay sago du ko bëgg ba du ko xol hmm. nar suma la rusuton bañ jaay yóbbu ma dagati bu dag man coow dama wala ma jara waaw réew toll na foo xam ne léegi damay commencé di saaga seytaane yi ci écran yi ay imbécile la ñu maa ngi tax sax man boo jégee saaga damay tiit nañu bàyyi kër jàmbur ñuy dugg di jaxase saa kees tey li mu def waaw mooy saa di tudd ñëw na ci xew mi balla boog di tudd <laughs> raqam ñëw ñëpp toog saa dafa waroon a yenn mais dafa ñëw tudd rek biñ tuddee rek mu dem ba ma tax saa yenn wul mais lu muy jox di yenn ah. yow seytaane nga jara aa ngay laaj yow naa fex nga léegi. ah man de laajuma ko. seytaane la laaju seytaane la laaj Makan Makan Ndiaye yàq na ñëpp ñëpp laaju la ñuy laaj laaj bi laaju seytaane la. man de du ma ko laaj laajuma la ko de man. jigéen ñoom moom yendu cib xew. Uh-huh. waaw ñëw na daf la yëfu góor di def. farata sunna ak moom. Ah. waaw bañ tuddee jëm jox nañ tur ba. waaw ki ñu ko tuddee. Abdoulaye Alé Ndiaye. ana Baye Ndiaye est-ce que fii la yendu. Baye tuddee ba toog bu benn heure mu dem. mais boobu saa ngi toog ci biir salle bi hadisa amu ngi fi jabaram dom jang fi kim tude mu tuddee Balla Omar mo ndaw fi la fi romb legui léegi gis naa ko ay wa imbécile nit ñi dañ bay wax ju bon Youssou dur fi la yendu gaku 2 fi la yendu ndigal fi la yendu te bokku ñok Balla nday ak bay ay ay jaram jara seytane la jara taskatu kër la xolasi sa diggante ak sumbul ay xarit ngeen legui la fi romb nuyu ko nako ko aarama jara xam nga ñoo bokkon ar bi ñoom am na gis amna rero xam nga doon sumbu jara milier bi mu nekk kenn di ko moom dañ ko doon liggéey am na ñu koy liggéey artiste mag ne ci dëkk bi dugal ko ci ndoxum teen mu amul barki dañ koo liggéey ay artiste liggéey nañ ko yóbbu tëram fu ne ci àdduna bi loolu na ma ak ni mu mënee woon aar bi mën ko maanaam di soxor iñaan bañ kenn dem kii kenn du ko ëpp talent ci aar ñoo ko liggéey muy laaj laaju saytaane yi saytaane la léegi yàqu na parce que laaju daf lay laaj macha allah waxi dof lay wax. mais bal Sathiès fi moom du débat. man du débat loolu waxi dof la man su ma sama bañ a yendu damay ñibbi. waaw te dama la fi bàyyi sax liggéey ma fi bàyyi. Sathiès ak Balla Gaye dara doxul seen diggante. macha allah tey wane na ko. macha allah ànd bu dëggoo day yàgg. Mm-hmm. nit ñi nañu bàyyi ñaar ñii ñu nekk seen jàmm. la Aziz Ndiaye mi ji. Hmm? Mm-hmm démb belum woon de ban noonu doo tur bi na Abdou Aziz Aly Ndiaye lañ ko tuddee barki sëriñ Tuubaa dama vivre fi ma toog oh. xam ne Balla Gaye dellu na bu mu ca mbooy bëgg def na Bal lagi war a def mhm. Balla Bal gën ñëpp ku ko bañ jóge fi Balla Gaye gën ne Balla Gaye gën mhm. ku ko neex naxari Balla fi ne waaye li jëntuuma kenn Balla sama mosa moom am sama sokolaa la. sama sokolaa la. Aziz Ndiaye ak Baye Ndiaye. Hmm. Baye moom mooy promoteur bu xeere bi. ah barke sëñ Bamba. woo koŋ bi mooy promoteur bu woo koŋ. maa dégg nag ay waay waay di wax ay combat un milliard. ah Assane ci ñi xeeree ñu la bokk. ah kooku daal kooku kooku gi ku si judd ku ne. <laughs> ku ne ku judd si gerte gi ku ne naan si mhm. muy bandi. ndeysaan Baye Ndiaye la kuy promoteur ku ne. bootul ci ginnaawam. ah loolu par force la. Eh, ah baa jaayee lamb baa ngi dégg dafa ay combat milliard ñooñu dañu bëgg a yàq lamb. waaw dégg naa ku ne day dégg combat 1 milliard def ko gratuit. loolu la te ñu ñu koy valoriser ñëpp xam nga ñan la géwélu sinap sinapeur yi géwélu amatuñu xaalis ndax sinap sinapkat yi <laughs> ku gis ne la DG. yi bëri nañ ci am na ku ne ma léegi DG. ak ñuy wax ci lamb di wax ngir seen poos dafa am dafa am ci lamb am na ñeen bu ñu leen ñu wax duñ communiqué ci ci ci ci lamb Siteu ak ak bi bu ñu communiqué Siteu ak Lo bi nee na bu fayul xaalis ñeen bu ñu leen fayul xaalis dañ wax bu jàmbaar bu dama fay dara Mansour Ba man ngi ku ma wax waaw man lu rafet rek ci ay chroniqueur yu ñu xam ci dañuy wax ci lamb ñor ah waaw am na ñoo xam dañuy ñëw di réyal mbagg di xoggaliku li jëttiwuma kenn ndayu kenn moomul lamb bàyyu kenn moomul lamb xam ci luñu xamut ñom xam ci luñu xamut te da nga bëre am ay ndam Seydina Mohamed bis bu ma yëngalee su ma Sénégal ub yow li nga xam ni kan moo ko moom buñ ma yëngal dé mais mais ki ngay waxal ni xaan am non buñ ma yëngal nañu koy waxal nañu bayyi di wut ñan ñone ne buñ leen fayul diñ wax ci combat ci buñ ma yëngal nañu nañu nañu bàyyi tudduma turu kenn wala ki naan fadam ngay wax ah waxuma kenn de tudd waxoo fadam man tudd ah? man ndax waxut ak fadam man duma tuddu turu jaamu duma togn ben doomu adama sama wax la yor di wax. waxoo Fadam sama wax ko orienté yóbbu ko fenen yow iya, ya la damay jubal dama ne. buñ ma yeungal mhm. ku gennu tontu ma ma wax ak yow. Ah, gennu tontu nga wax nañu genn ci combat site ak modlo sen seen yoon ci hmm ci wax lu bon ak lu ñaaw di. non ak di ci jël ay mbeur di ko yóbbu ci serigne ah ah <laughs> lu leer la lay wax. Ya, ya. lamb la lay wax de. ay nit lamb ñoy def lool di jël kan di ci serigne nañu réglé. ay journaliste reporter wala. nañu bayyi lamb gi ñu bayyi di jël mbeur yi di suuxlu be ay mbeur ci suuf nañu bayyi lolu nañu bayyi di bot ci kaw ginnaaw mbeuri di suuxlu ay mbeur ci suuf di dem ci ay serigne di yobbu ay mbeur ñu leen di liggey nañu bàyyi loolu. macha allah mais dama la jëlone keroog nga wax ci combat royal biñu ñu jëm le 24 digënté Siteu ak modlo Lo ma modlo du songu Siteu. ba tay ci laa nekk. bisu modlo songé songee Siteu ma bàyyi làmb. Hmm. loolu man mako man la engager mais fo tek lolu abu fuñ tek ne 35 combat mud mën na daan Siteu fa laa teg ne mud bu songé Siteu ba bàyyi lamb ah waxi buur non Siteu ndol mu xóot la buur mak lay day commencé di nax nak en tamit comprendre len ko ah sama papa legui day naax oh! mais nag clashante bi xam nga li problème lamb làmb ah. nañu bàyyi nar fa mu liggéey waaw man limay wax man la engagé waajooma ko ndaanaan ga da ngaa xerew ak eh bul peur dara de bul ah. dit kenn ay bandi nga xalat domi gunaas nga bay gitu, amul loy ragal ci ay ay jamono ji ci rew man nak ku bëgg ay wax boo jël du feñ bu ragal dara ku bëgg wax dekk micro lu wax mom la engagé xamal ya. la ngay la teg ci organiser ko bu daw dara inshallah eh fi kenn moomu ko ah. lamb kenn moomu ko ma ne la bay ku bu sa sanday ak sa bay mom lamb la jël yóbbu sa bir kër ñun réew ñu impacté ci lamb kenn gën ñoo xam lamb ñoo fekkee lamb bi démb léegi fekkee lamb bi tey léegi la lan la Balla wax fii léegi la ba waxtaan waaw waaw waxtaan nañu man la li boy di di di, di dof dof lu gii kee leen gënoon a feebar fop mm-hmm. ba muy yàqu day tey dama ko Abou Sefa nee na alwaraaj mos na laa bu raw alwara moo newoon ci moom moo ci moom kee gënoon a yàqu ki foofu mu laan nga jaasi fii nga ah. mus koo yëpp góor da koo mus a ah. te góor du ko yëpp ba muy bàyyi lamb nag de balaa ñoo xam loolu nañ combat un milliard duñ ko déclassé ku ne xam nga ku mën sa bàyyi. donc si si Modou Lo Modou Lo Balla Gaye yaakaaraat nga. Modou Lo Balla mulu, waaw mun naa amaat. parce que li li Balla mu da ko bëgg ñam. Balla dem daa bëgg ñam su ko arrêté. ñamoon na ko bëgg a da ko bëgg a ñamaat maay l'empereur maay roi seen ko daax. Modou Lo bu daanee Balla day don bu mu day don don na 1 milliard 200 milliards ko amul ñu ko allah ku say 1 milliard téye ko. 2 milliards la ciy def combat boobu. Balla Gaye ku ko fayal 1 milliard 1 milliard pour Balla Gaye 1 milliard pour Modou Lo combat bi taxaw. 2 milliards coono yi fi nekk booy di tëb dal, daal amuñu loolu. nañu bàyyi promoteur bu xeere bi wow kong, kong mooy Baye Ndiaye sama xarit yàlla yàlla guddal fanam. Ah. Baye Ndiaye lu mu laal moo gën lu mu laalut. yàlla ko yàlla defal taw féex. luy mat asgor bu ko séenee yàlla ŋaang. Baye Ndiaye ku wax lu bon. Ah. ma wax ko lu bon.

si bu leen ma kar bu sama doomu ndey oto la may waaj may dañ ma dimbali barki sëñ Tuba yàlla yàlla yàlla yàlla ñëw Baye Ndiaye yàlla nga gudd fan lan la ñëw ndax moog Baye Ndiaye dañoo ndax yaag Baye da ngeen a juboo dañoo mosoo xuloo dina waaw xuloo ngeen jox ma jox ma micro bi hmm? ngeen ga ñu la laaj la agitation nga dal ci kawam ku leen jubale wala kii du abu feefa nit du xuloo baayam yàlla tax waaye nit yaa ngi dégg yi doxoon seen diggante nit du xuloo baayam am solo xale lu yoon day wut yàgg duma ma dul. suma <laughs> xarit la. naa dafa ay vidéo yu ma la bëgg a won. yoo xamante ne eh, ak amul ma neex ci moom lépp am preuve. preuve du waxantu. ma demee Kër Baye. Ah. ma takk bi ma jox. taxulaat pour man si laa la. loo foog si laa beer bi mu jox la si laa ne la jox ko sa doom. <laughs> waaw mën ko bàyyi lii si laa beer loola mën na ma déedéet si laa beer fan mën na ma. si laa bi nga nii ku la jox lii. mu ngi nii takk yi ma bàyyi jox. pour leen lii ma xool takkuwaa ngi pour man lii si laa beer la. biñ la xam oh! leen gën na man si laa la ma bàyyi jox. ma xool lii lii dafa nii. man si laa la ma jox. lan la woon yónneent la. wala man mi def naaj sama jox la ma jox na jara man gëj naa xanaa nekkul ni keroog bi nga ñëwee réunion ba. ak moom maay deuxième léegi. ak ci bañ bañ nangu. ah bañ bañ nangu. yàlla suñu borom moo ñu boole. muy nit ku baax. jamono ji ku may jël da ngay nangu ne Baye Ndiaye gën solo looy tàggoo tàng nga jër. tàng naa jër na seytaane bàyyi. naar wal bu coow la coow bi la bu la coow toppatoon mu naar. waaw non waaye bàyyil bul saaga <laughs>

mau ko nanti nan tey maag moom jaraañu jubóo de suñu tànk yi bokk na ci ak suñu appel yi de wallaay wallaay du duñu nday jaxase ah kenn duñu nday jaxase géejawaay kenn du ko nday jaxase tey nga dagg ba sonn lag jëp yàlla gaaw suñu borom teggil nattu bi di ñaanal di ñaanal réew naar naar faal maa ngi ñaanal ñëpp li may wax bu si dagg dara de barki samay engagement samay responsable la ku di fi wax lu ñaaw man ubbi sat waay man jërëjëf Naar Fall. jaajëf am na solo.